ci dalal koo xam ni euh, day kenn ci réew mi waaye ñu am mbégte ci dalal koo xam ni vraiment émission bi tey la am un an quinze jours tey la ñuy doog a recevoir ci biir émission bi ñëw nañ fii tey suba ni ko nabu ñu ngi ci buntu kër gi ne ñu noonu ñibbi leen loolu tamit faa ma wax ko ci pour nga xam ne coonañ daj ci émission bi mais nag normal ku baax la jotom bariwul tey dafa naroon tourner ci clip mais day ñëw. mu recevoir ñu donte añu ñu tamit mais am nañ ci mbégte vraiment <laughs> Nobé dañ la dañ lay bàyyi nga nuyoog ñi lay suivre fii ci People 221. waaw nuyu bi maa ngi leen di ziar ah di nuyu waa Sénégal. di mhm. nuyu monde entier di sama famille. samay xarit ñi nga xamante ne ñi ngi may bëggee ñi nga xam ne bu ñu gisee na bu lay seen xol day sedd maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen ñuyu yéen waa people 221 euh, sànni xeer yi nag mun naa ñàkk <laughs> ndax raqaaju ak déreg la weesuwul. <laughs> dëgg da doon. nga woo nit ki <laughs> mu ne la suba. da ngay expliqué midi yow nga ñëw midi. <laughs> da ngay expliqué. ci koo xawante ne yow xam nga ne benn loxo laa kër gi gis nga ma maa fi nekk ma war a bare fobeere raxas ndab raxas duus. Ah, da ngay expliqué yow da ngay ñëw teewee lépp maa la dàq da ngaa mooy sax. da nga ñibbi ba ñibbi woo am nga sens. vraiment bu nekk bu baax nag fas yéene waxtaan ak moom tey ci aar bi ak li nga xam ne mooy actualité nabu. lan moo la dugal ci théâtre parce que Nabou bi mu débuté ñu bari dañ ko xamee woon ci fecc bi. Mhm. donte théâtre bi doon na ko def mais théâtre bi fecc bi moo gënoon a fës li nga xamante ne mooy théâtre bi. ma ci euh, mooy danse danse moom ma ci dugal parce que dañoo amoon benn benn casting bu amoon li may wax chaque jour rek may nuyuwaale sama papa Aziz Dabala alliance Kërz. Mhm. ndax chaque jour damay wax ne. Nabou Leye fu mu toll ci aar rek yàlla ak moom la ndax moo ma jàngal aar. Mhm. moo ma teg ci yoon. Aziz waa Aziz Dabala. Mhm. léegi ñu amoon benn casting boo xamante ne dafa waroon am dance mhm. série bi ñu woo ko mu woo ma ci. Njool Njaay moo ko woo sama frère boobu tam maa ngi koy nuyu bu baax. Mhm. woo ko mu woo ma ci ñu dem def casting bi ñu approuvé jël ñu ci ci laa commencé théâtre loolu moo la ci dugal. waa moo ma ci dugal. d' ñu gis ni léegi dafa mel ni théâtre bi nga gën a euh, suivre que li nga xamante ni mooy fecc mi. waaw xam nga li may wax rek chaque jour liggéey la rek. Mhm. liggéey moom liggéey la. Mhm. man fuñ ma woo ma wuyu ci sama aar. Mhm. buñ ma woowee ci tournage clip damay dem liggéey. buñ ma woowee ci ci ci ci ci programme damay dem joué ji ko. suñ ma woowee ci théâtre bi tamit ma am lu moo ci war a liggéey. damay dem liggéey ko. man moom dama ne lépp liggéey la rek. toog bi daal laay bañ moom. mais nabu léegi feccatoo de parce que nabu mi ma gis ni euh, vraiment xam naa ku la teeloon benn baaram bay gëmma dem. laay bu boobaa ma baaram bay lu neex. nabu ma nga fecc ba tey. boobaa ma baaram bay lu diig ñu wàcc ko nag ba mu wàcc ndax xam nga baaram bay yu démb day wàcc du gaaw. bu boobaa ma fecc ko ba mu neex. ah nabu léegi tournage série xam nga clim booy dem oto la yóbbu. par rapport ak fecc bi loolu. te ku la xool léegi da nga da lu may tourner tourner tourner lu may nekk samay activité saa su ngoon jotee damay dem entraîner. nga entraîné waaw maa ngi entraîné fii centre commercial El moo Modou Fall. waaw euh, salle Batora bi. Mhm. foofu laay entraîné ma leen nuyu de passage. Mhm. ah di wax gars yi nag nañ dem ah, nañ dem nañ dem parce que salle bi salle bu baax lépp a ngi fa manqué wul dara vraiment. Mhm. fa laay nekk chaque jour fa laay entraîné. di profité di nuyu waale tamit borom euh, centre bi. muy sama papa ju baax. ku ñàkk client. ah Ousmane maa ngi koy ziar di ko di ko di ko bëggee bu baax a baax a baax. da nga dem service commercial mbay naa koy def ba mu neex. fayoo leen ma de. d' xam naa ne xam naa ne émission bi mosuma émission bi moom wax na dugg émission bi moom ku ma ci gërëm na ma ci remercié na dugg <laughs> a dépassé ko sa ci sa ci sa ci sa sa première série boo a joué naka nga naka naka naka nga ko dundee waaw normal normal parce que xam nga nit mun nga mun nga opté benn benn liggéey mhm. comme lu ñuy wax nit mun na jàng ba yor ay diplôme am mhm. foog na ci jàng bi lay tekkee fekk na yàlla mu ngi ko doon xaar feneen mhm. la mu ko dencal feneen la nekk fu bokk tak lim lim lim ot mu mhm. comprendre nga donk voilà mooy loolu daal awma ci problème te xam naa ne tamit yàlla boole woon na boole boole woon na ko ci sama destin. Mhm. que ne man dama ko waroon def. Mhm. en plus nag man man man li ñuy li ñuy li mu bëri di wax naan xaalisu xaalisu làmb lañ ma ngéntee. man xaalisu aar lañ ma ngéntee. sama papa artiste international la. Mhm. ma koy saluer moom aussi de passage. mi ngi tudd Thialis Lay mhm. joué na théâtre yu bëri mi ngi ci vautour théâtre yu bëri joué na ko mhm. waaw muy sama papa di sama xarit mhm. artiste peintre la day joué théâtre sama yaay tam daan na théâtre daanay coach donc art bi dama ci bokk kon boo ci war nga ci joué voilà dama ci bokk tey ma ñëw ci série bi nga xamante ni mooy mooy dikkoon ñu bëri fa lañ la commencé woon ràññee série boobu nga joué ci benn rôle boo xam ne touché na sénégalais yu bëri euh, rôle yooyu naka nga koy jàngatee dañu xool nit ki ci image am ñu jox ko rôle yooyu wala ci su ci ci ci ci ci kii koy waxee te ci scénario bi rek ngay sukkandiku pour jouer loolu. waaw xam nga mooy li ma la wax rek casting la. Mhm. boo ñëwee di def casting rôle yi lay bëri. Mhm. mais yow yaay tànn benn rôle. d'accord rôle boobu noonu mën nga ko tànn def casting bi jàllul fekk na beneen rôle bi nga war a joué. Mhm. donc ñoom ñi lay jox role yi ñoom ñoo lay tànnal euh, rôle booy joué. Mhm. waaw des fois ñu jox la role bu compliqué. des fois mhm. ñu jox la rôle boo xamante ne mun na mun na mun na méngoo ak sa vie. des fois ñu jox la rôle boo xamante ne tey jii sax yow meloo noonu. mais da nga koy joué parce que liggéey la rek. boo paree après nga dem nekk ci sa bopp. te bu lay dafa mel ni gars yu bari liñ koy jox mooy mooy mooy mooy mooy lëmbali. waaw nag ko mën bu ko mën waaw. d' accord mosuñu la mosuñu la peser ci ay ci ay ci ay ci ay ci ay ci comme tey nga ñëw ñun la li ñu lay force da nga ko war a jouer yooyu. non non parce que foog naa ne nit ki moom lépp looy def rek. Mhm. danga ciy dem ak fulla ak fayda. Mhm. te man lu ma arrangé wul du ma ko def. Mhm. lu ma leereen lii nii du ma arrangé. ko def parce que yàlla dafa ma booleeg ay. góor. Mhm. man sama yaay man rek la am ci doom bu jigéen ah. mooy nuyu sama yaay tamit sama xarit sama sëriñ sama sama jumelle sama lépp. non li ngeen nuyoo bari na bu baax. lu xam nga émission bi nata yegg ndax dañuy songoo léegi. <laughs> waaw donc mhm. dagg. non ay gal yaa sama yaay sama xarit. Mhm. sama lépp. ma nuyu di ko di ko di ko saluer. man ay ay ay rek laa am. man nag maay jigéen. Mhm. malgré man maa nekk ak sama yaay. Mhm. ñoom voyagé nañ. Mhm. donc lu bëri dama leen ciy sooraale parce que dañoo nekk ay nit yoo xam ne nitu kersa lañ. te li may wax chaque jour ak magum jëmm laa. am naa doom. sëy naa ba tas. su ma nekkoon dem nekk ci lu ma neex. su ma nekkoon dem jël sama appartement. te boobaa ñoom duñ ci mën dara. mais nit ku nekk ak niñ lay yaree. Euh, mun naa ne ba nii ma toll nii dama leen a déggal. bu ni ma toll nii. Mm-hmm. su ma jàppoon dara wala ma nekk ci lenn bu ma ci kenn woowee rus naa leen rus goo xamante ne damay bàyyi. Mm-hmm. parce que ñoom si seen jëm bopp bëgg nañ ma bëgg boo xamante ne duñ sëgg sa xool ma. Mm-hmm. surtout suñu taaw muy biraa lay. kooku mooy mooy mooy suñu lépp man mooy sama papa mooy sama sama sama mag mooy sama lépp. ndeysaan voilà à chaque fois nag dañ may woo di ma conseiller te bu leen nekkoon tey tey tey ñu ne ma bàyyil te damay bàyyi. mais comme que ñoom comprendre nañ ma. bàyyi nañ ma ci sama liggéey. Mhm. Euh, te boobu ba léegi maa ngi sant yàlla décevoir ma leen ci te maa ngi ñaan yàlla di mu suturaal. Mhm. chaque jour ba duñ gis lu leen métti ci man. Mhm. donc damay sóoraale lu bari daal ñoom ñëpp dama leen di sóoraale ba am na yenn rôle yoo xamante ne vraiment. du ma ko bëgg sax di jouer parce que du ma bëgg ñuy ñuy am kersa wala genre affaire yooyu noonu. d'accord yaa gën a xam. d'accord ma ñëw ci série bi nga xam ne mooy emprise daanaka nag dëgg-dëgg Nabou Leye damay gën a ràññee. dëgg la tey série boobu noonu xam ni difficile na pour pour pour pour nga intégrer ci. Mhm. waaw difficile sax difficile parce que dañ maa fekk ci sama mënin. Mhm. dañ maa fekk si ci li may def muy aar. Mhm. waaw malgré que nag am na am na am na ñaar ñaari ñaari ñaari mbir yoo xamante ne genre am naa ci ku ma lakkal. am naa ci koo xamante ne ku ma bëgg te loolu tam réalité la dafa am ci dëkk bi carrément. des fois da nga gis koo xamante ne nii tey da ngeen di nekk. mu bëgg la te yàlla rek tax. mais da koy sonal. Mm-hmm. te dafa bëri ci jigéen ñi. Mm-hmm. am na jigéen ñoo xam ne dinañ nekk ak góor. Mm-hmm. xam nga duñu xaar ci moom dara. duñu yóotu ci moom dara dañ koy bëgg rek te yàlla tax. mais amaana ñooñu duñ xool loolu. dafay am. léegi keneen day jóge fële koo xamante ne moom day xam valeur ku jigéen ki mhm. doon ku baax mhm. ku koo xamante amul problème mhm. ñëw nangu ko si sa loxo donc yeeta la rek yeeta la du leneen ama Sénégal moom dafa doy waar léegi nit ñi li ñuy tourné la ñuy jël bëgg ko def dëgg dëgg la parce que man def naa fi direct nit saaga ma ci loolu noonu parce que Pape Demba maa ngi génn ak moom te dafa am dafa war a tax jabar man maa tax takkul jabaram xam nga nit ki saaga ma mel ni comme si que réalité la la alors la yeete ma ko sax. dëgg la mm-hmm. dëgg la tey ñi ñëw fan yi gis nañ maison production yi xaw am ay ay ay werante mm-hmm. entre acteurs yi wala actrices yi ak maison production yi ci affaire cachet wala wala des fois ñu gérer loola benn série boo xam ne loo ko gérer parce que tout récemment ñu ngi gis benn femme. bu nekk euh, Marodi. Mm-hmm. génn doon déclaré li nga xamante ni mooy méttitam que ni dañ ko jéloo que ni série bi dañ ci war a xam alors que dañ ko bëgg a génnee ci série bi yooyu noonu naka ngeen koy dundee yéen. Ah, dunduma ko ci mm-hmm. mu suma am problème ak waa Marodi mm-hmm. maa ngi leen ziar ñoom tamit bu baax a baax a baax mm-hmm. bi ma fa duggee ba ni série bi di jeexee aw ma problème pour ñu fay ma aw ma problème mu lekk aw ma problème mu naan aw ma problème yére vraiment nit ku nekk nag da ngay wax li nekk ci yow waaw nit ku nekk da ngay wax lu nekk si yow. Mhm. peut nit ku nekk ak li nga dund ak nit ki wala fi nga jaar ak nit ki. Mhm. mais a ah, man ak ñoom moom vraiment aw ak ñoom benn problème musuma am ak ñoom benn problème. Mhm. waaw te xam nga histoire boo xamante ne. fekkee ma ko. xaw ma li ko lal. Mhm. xaw ma fu mu juddoo. lu mhm. mu ci mën a débat vraiment bu nekkoon nag dama ko fekkee peut-être dinaa ci mën a sànni samay kàddu. Mhm. waaw mais daal nañ rafetal lépp rek ñu boole xelu yi den doon benn. ñuy waxtaan. parce que ñu ngi gis sax euh, sa sa sa sa collègue de travail Big Mama. démb rek moom tamit mu ngi génn di naqarlu loolu que ni maison production yi dañuy utiliser ñi nga xamante ni ñooy artistes yi. li ñu leen war a fay duñ leen ko fay. waaw mais loolu nit ki moo koy nangu man le fait que ngi signé ak am a contrat mooy lépp. Mhm. parce que boo tourné ak nit ki. Mhm. nga am ak moom contrat soit da lay fay. Mhm. nga liggéeyal ko. parce que tey jii boo bu la nit ki defaree contrat. nga war koo liggéeyal liggéeyaloo ko. dalay lay woo ci yoon. parce que contrat la signé nga ko ba pare. donc man bu ma la signé lay contrat. yu war a liggéey heure fay bu jotee da may fay. donc nit ki je pense que nit ki moo war a lijjanti. lijjanti loolu ba. du yegg moroomam foofu. vraiment waaw. d'accord fan yii paase ñu nemmeeku benn coow loo xam ne it amoon na loolu tamit dinaa la ci wax parce que ku jëkk loo xam. fan yii di la gis na sa digganteeg Sanekh. Mm. am coow loo xamante ne amoon na kii di Vieux Ba génnoon yëkkati li nga xamante ne mooy ay kaddu di ko jëmale ci kii nga xam ne mooy Sanekh ak Soleil Levant. Mm. bi nga seetaanee loolu en tant que actrice naka nga ko jàngatee. Euh, man nag tonton Vieux xaw ma ko. Mm-hmm. malgré que yàgg naa kaa suivre depuis bi may nekk xale. Mm-hmm. waaw Sanekh sama papa sama xarit la mm-hmm. ku baax la mm-hmm. ku ñàkk ki ñaan la mm-hmm. barki Serigne Saliou Mbacké man du ma ne nit gis naa yàllaa ñu ne te gisuma ko man je suis pas comme ça moo tax ñu naan dama dama dama réew wala dama ñàkk kersa man dama direct loo am la ma koy wax nit ku nekk li ma la xamal laa lay waxal du ma sosal doomu aadama du ma yàq doomu aadama euh, ku baax la ku ñàkk ki ñaan la te ñu ngi bokk di liggéey te li ma gën a neex ci moom mooy dafa dafa dafa dafa may jox sama pàppa mm-hmm. parce que à chaque fois bu ñëwee pour liggéey mi ngi kuul benn place. Mm-hmm. toog xam nga jàpp ñaamburam. Mm-hmm. bu heure def jotee mu def. bu heure kaf jotee tamit day kaf ak ñun ñëpp. vraiment reetaan looñu bu paree mi ngi toog kuul kuulam. xamewu ko lenn loo xamante ne lu manquant la wala lu ñàkk fayda la. mooy li ma wax sànq rek. nañuy waxtaan. ndax ñoom ñaar bi ñuy ànd ñun xamuñu ko. bi ñuy ànd ñun yëguñu mhm. kon bu demee ba am ay problème nañ ko waxtaanee ci suuf mhm. amaana tey bu ñu wootante woon mhm. kon duñu yegg si fii ñoom ñaar mais ñu gis ni Sanex problème yooyu tamit dafa bari lu mu koy dal daloon na ko fi Paco génn na fi Baye Fall génn na fi tout récemment rek Lamine Ndiaye génnoon na fi aussi moom laa lay wax ne nee naa la man problème bu ma maîtriser wul mënu ma cee wax mais tamit njiit moo mel noonu waaw ku jiitu xaji mbow na njiit moo mel noonu xëy na xëy na moo tax mu demee fa noonu mais hmm. ah wax dëgg fa neex yàlla man xamaluma ko lenn loo xamante ne sikk la hmm. wala wala wala wala manquant la hmm. wala lu lu ñàkk fayda la non xamalewu ma ko ko musuma koo gis ci moom barke Serigne Touba ku ci nekk rek waxalal ko jikko mais nag maîtriser wu ma problème bi. Mhm. fekkee ma ko. Mhm. du ma ci mën a sore mhm. mais ki ma ci xam. muy papa Saneex. li ma ko xamal rek laa ci mën a wax daal loolu laa ko mën a seedeel. ku jub la. ku direct la. ku amul benn problème ku jàpp ñaamuram tamit. d'accord mais ñoom ñaar ak temps bi nga xam ne nañ ko. est que tey kii di vie. Euh, euh, jaadu woon na mu génn di wax kàddu yooyu ñu waroon ko waxtaanee ci suuf. moom laa lay wax nii rek. Mhm. nee naa la internet bi lim lim lim lim lim yàq dafa bëree mhm. parce que euh, am na yenn problème yoo xamante ne jarul muy jóg. Mhm. réeroo amul ñàkk waxtaan am te ñaar ñu ñaar ñu yàgg ànd. ah problème site internet yi yoonu site internet yi nekku ci. mënoon nañ koo waxtaanee ci suuf. mu bañ a jëm kaw. voilà loolu la Sénégal nag mi ngi nii moom ñoom moom <laughs> mooy loolu. Mhm. bu dara xasee ba jóg rek doo doo doo doo xam fooy fooy fooy jëm. Mhm. waaw parce que da ngay gis fii gis fee gis fii gis mais yàlla dëgg la bëgg. Mhm. te Sénégalais itam dafa ñu xam nañ dëgg. xam nañ yoon. donc voilà damay ñaanal sama papa Sanex yàlla defal ko jàmm. may ko gudd fan ak wérgu yaram gën a yokk taxawaayam. tey ma ñëw ci rôle yi nga xam ne yaa ngi koy joué du ñàkk dina bëri ay critique parce que Sénégal. mooy li nga wax rek boo defee ñu wax boo deful ñu wax tey nga ñëw engagé wu di jouer yoo xamante ni lu ci ëpp day doon wàllu danse wàllu fecc yi. Mhm. tey critique yooyu naka nga koy dundee ak sa famille. nice normal. Mhm. normal. Mhm. critique moom mënul ñàkk ci nit. te man dama ne critique daf daf lay day tax nga jàng lu bëri tamit. parce que nit kuñ dul critiquer. defoo. booy liggéey. force ñu critiquer la. donc man yooyu noonu ça me dérange pas buñ ma critiquer tamit. damay xam ne dañ ma war a critiquer rek après damay xool li tax ñu may critiquer bu mm-hmm. nekkee nu ma war a changer la mm-hmm. ma changer ko mm-hmm. loolu la problème boobu tey tey ci wàllu art bi nga commencé ba tey du ñàkk mës nga ci dund loo xamante ne nii lu la lu la lu la lu la métti la loo xam ne danga koy da koy xalaat mu lay métti mm. ah non moom mooy li ma wax rek man mhm. j'ai pas aw ma aw ma aw ma genre problème yooyu mhm. aw genre problème aar moom dafa métti chaque jour nga dund ci lu métti mhm. chaque jour nga coo sonn si chaque jour nga am ci problème mais da sant yàlla rek waaw parce que dara yombul dara yombul tey ma ñëwaat ci ci kaw Vieux bi ak Sanekh bi xam naa fa laay jeexalee ci ci ci ci domaine boobu nangoo cee wax mais dina la mën fa laay fa laay tey tey tey est-ce que Sanekh aussi tamit ni mu ni mu génnee wax di tëkku ki nga xamante ni mooy Weber est-ce que tamit jaadu woon na Sanekh di def démarche yooyu parce que mu ngi naan Weber da nga da nga tas société da nga yàq kër sama mag mu ngi ci crise et cetera est-ce que jaadu woon na kii sa papa di Sanekh génnee eh, dossier yooyu. waaw mais xam nga chaque jour ñu topp la di wax di wax di wax di wax di wax. Mm-hmm. da di yoon nag des fois nga génn sa tal sa der. Mm-hmm. du dëgg. Mm-hmm. mais bu ñu lay wax chaque jour ngay noppi ñu lay wax chaque jour ngay noppi bu yàggee sax nit ñi mën nañoo wax. Mm-hmm. mais li ma wax rek sénégalais dofuñu te xam nañ dëgg. Mm-hmm. kon da nga jàpp ni Sanekh moo am dëgg. ah man de moom laa xam. Mm-hmm. xaw ma keneen. te li ma ko xamee. noonu la waxee. ni ma ko gis muy doxalee noonu la waxee. waaw. mi ngi noonu man jugé wu ma kenn du ma jugé kenn ku nekk ak sa problème. Mhm. ndax man sama bopp daf maa doy misaal te sama problème bopp daf maa doy. Mhm. mais daal vraiment xamaluma ko lenn loo xamante ne war naa toog di ko critiquer wala ma ne warul def li war a warul woon def li mhm. waaw parce que la tax mu def loolu xëy na moom yëg-yëgam la ak fa mu toll. nit ku nekk ak fi ngay toll. xëy dafa sës moo tax mu wax. te c'est normal. parce que baat tontu la rek. waaw loolu la. tey tey tey aar bi nan ngeen koy dundee parce que dañuy gis ni fan yee paase rek Pape Djibril Fall mi ngi que ni da ngay gis euh, artistes yi mën nañuy commencer benn série ñu bari boo xoolee succès wala buzz moo leen ciy dugal mais à fin da ngay gis artistes yërëm ko lan mooy waral loolu. ah <coughs> xam nga ki wax loolu nu mu tuddati sax. Pape Djibril Fall Pape wax ji kañ la ko wax. fan yee waaw kañ la. yàggul. yàggul. non non man boo gisee yàggul. mais man dama dégg ñu ne vidéo bi de na ay cinq ans dix ans yooyu. man de fan yii paase waaw fan yii paase lañ ko laaxu gisat man ba ñoom Aline Mbaye ak ñëpp génn nañ di ko tontu. waaw gis naa loolu yëpp. Mm-hmm. mais euh, man ku génn di wax. Mm-hmm. genre man damay jouer mm-hmm. mais nit ku génn di wax. tuddul sama tur. waxul ak man. te la may wax defuma ko. man du ko tontu boo ko tontoo tooñ ko xaw ma ko xamaanuma yaa ngi dégg. Mhm. dafa taxaw ci école je pense. Mhm. di yeete élèves mhm. fii ku fi nekk boo fa ñoom aar bi dara nekk ci ba nu de. ndax au moins ñu ngi ciy suturlu. ñu ciy dundal suñuy famille man boog maa ngi ciy yor sama nday jii ma toogal ci biir kër gi. lu ma ci am maa ngi ñëw di ko indil. kon maanaam bonul. mais nag dafa am ñoo xamante ne dañuy jóge ci àll ba di ñëw di salteel liggéey boo gis am na ñuy yàq. du dëgg. te tey ku ci sañoon. sa doom bu màggee. mun na am lu gën aar. Mhm. comme xam nga fi may waxee. du parce que ñun ñi jël suñu doom yi di leen dugal ci école yu seer di leen mhm. fayal ñuy jàng. Mhm. ñaan nañ yàlla ëllëg ñu doon président. avocat. wala ministre wala ak que ce soit. malgré que ne nag ku ci nekk ak sa destin li ma wax sànq. donc mooy loolu méttiwul moom dafa taxaw di conseiller ay xale. nañ jàpp na moom xelam foofu la toll. muy conseiller. mais sénégalais moo war a bàyyi yee fitna. Mhm. parce que vidéo bu génn depuis cinq ans. Mhm. wala dix mhm. lu muy wut ci deux mille vingt deux. nga indi ko deux mille vingt deux teg ko fi. pour lan pour jaxase pour ruumanaat. mais Pape Djibril Fall mënuñu koo ñu ak artistes yi. artistes yi mënuñu leen a jaxaseeg Pape Djibril Fall ñun ñëpp mhm. benn lañ. Mhm. nañ boole xol doon benn. Mhm. moom dafa doon yeete xëy na noonu la mën a yeetewee. mais dañ ko jàppee ne noonu la mën a yeetewee. mais ñun suñu aar xam nañ ko. ñun ñu ngi liggéey suñu liggéey. liñ ciy am ñu ngi ciy suturlu. loolu mu wax noonu ah man defuma ko. te ñi may gis ci aar bi ñëpp ba ci Aline Mbaye ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen man xamee ma leen manquant. xamee ma leen ñàkk fayda xamee ma leen ñàkk fula. ñu ngi liggéey seen liggéey toog yor seen famille. Aline Mbaye sama xarit sama frère la. dafa yor këram. ñeneen ak ñeneen. Mhm. donc buñ tontu. buñ mhm. tontu nañ fair play rek waxtaanee ko. d'accord tey ma ñëw fi may jeexalee mooy euh, ban message ngay lancé jigéen ñi parce que boo xoolee jigéen société la. Mhm. mais dañu gis ni ci yenn série yi ñu bari yenn jigéen dañ leen di proposer yenn yenn yenn yenn rôle yoo xamante ni après dañuy génn sénégalais yi bari di ko ñaaw parce que bokkul ci li nga xam ne mooy sunu culture ban message ngay lancé ci ci ci ci loolu. waaw ñu gën a rafetal toogaay rek. ñu gën a rafetal toogaay gën a gën a xool nu ñuy liggéeyee. Mhm. parce que nit ki moom moom boppam. Mhm. lu mu bëggul nit ki liggéeyaloo ko. du ko mhm. liggéey. yaa ngi donc nañ ko rafetal rek daal. mu ñaaw parce que tamit man mënuma cee wax leen ndax nit ku nekk ak sa sa choix. nit ku nekk ak sa mode de vie. nit ku nekk ak ni ngay doxalee. donc mënuma ci critiquer kenn mënuma ci wax kenn bàyyi li bàyyi li mais nañ rafetal rek daal. na lépp rafet. d' accord euh, mu mel ni liñ ma mayoon ci waxtu jeex na tey nag Nabou dafa maa waaxu parce que man fi ma kolewu nii ba tey juguma fi ak li ma préparé woon biir waxtaan ko <laughs> dafa maa mel daa dafa maa waaxu dafa maa jël jël ku njëkk tey moom la dama ko dégg mu naan maa ngi nuyu xuma fans club Nabou Leye man fans club yooyu fecc la wala wala la wala man comprendre ma. non sama fans yi rek xam nga nit ku nekk moom lépp loo yëngu rek am na ñu ci bëgg. Mm-hmm. waaw man duma dara. Mm-hmm. dama koy wax chaque jour. Mm-hmm. duma tus man mm-hmm. benn simple yaay faal rek la aw ma benn problème. vraiment yàlla yàlla moo ma tiim. nit ku ma mënti di gis dama lay def comme sama bopp te ñëpp jàmm laa leen yéene. donc damay bëggee ñëpp. di ziar ñëpp. Ah. di leen wax ne tamit émission bi lépp lu ma ci wax bu nekkee dafa dérangé wala am na ku ci gis boppam tam maa ngi jéggalu bu baax a baax a baax a baax parce que mm-hmm. nit rek laa nit day juum mm-hmm. di ziar ñëpp mm-hmm. di bëggee ñëpp di ziar nag sama papa sama xarit ah Samba Ndour maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax a baax di ko ñaanal jàmm mhm. ak gudd fan ah ak euh, sëñ Modou Kéemaan mi ñu nekk di tourneel Kéemaan Vision mhm. waaw di ziyaar ñëpp di ñaanal Kéemaan tamit yàlla taxaw ko mhm. defal ko jàmm ci barki Seydina Mouhamed euh, euh, voilà gars yi mu ngi noonu moo nekkoon suñu invité tey ñu am mbégte ci dalal ko fii suñu kër di people 221 mu di Nabou Leye di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm vraiment nit ku baax la nit ku disponible naqare jot rek